benn kuréel benn assemblée boo xam ne ne lu ñuy def te chambre assemblée consultative la mooy dañ koy laaj xalaatam ci lu bëri bu boobaa bu ñu nee Sénégal am na pétrole wala gaz ñu defar document yépp lañ ca war a bind ci français lañ ca war a bind ci arabe lañ ca war a bind ci olofal yéeg ko ñu ko war a yéeg neleen gaz bi fii la nekk nangami million de mètres cubes la nii ak nii la demee lan moo ciy seen xalaat loolu amul ndax tey jii waxuma la sax kilifa diine yi waaye kenn ku ne ci ñun kenn xamul suñuy ressource naturelle fan la ne ak naka lañ ko yore munoon naa lim yeneen ak yeneen ak yeneen waaye dama koy dakk fii pour wax rek ni ñun suñu gis-gis ci diine du discuss boo xam ne da ngay instrumentaliser diine da ngay essayer jëfandikoo diine di ko jëriñoo te gëmoo ci dara loo gëmul nag munoo ko munoo ko def nawle am na nag lu xew ci réew mi mooy yàgg na am sax waaye fan yi dafa mel ni dañoo jëfóorati mooy nee nañu dafa am parti boo xam ne ñu koy wax Pastef dafa di parti boo xam ne dafa contre diine ndax koo ne dafa contre tarixa wala dafa contre mag ñi da ko ne dafa contre diine nee ko rek da contre islam bu la neexee sax nga ne ko murtad nga te li ma ci gën a yéem ñiy wër di ko wax ñiy wër di ko wax koo ci ne woon lan mooy sa relation diine koo ci ne woon taril ma xaaju suuf bi waxuma xisib waxuma nis waxuma rubu waaye dama ne koo ci ne woon taril ma dig diggante ah, ah, ba ci suuf boo moytul jafe-jafe am muy benn ñaareel bi ñiy wër di wax ñiy wër di wax ne dañoo bëgg a féew dañoo bëgg ak kilifa yi te fi mu ne nii jotaay bu ñu dem wax ko fa ñoom ñoo fi ne woon kilifa yi ay citoyen ordinaire lañu te muy gëm-gëm ci ñoom ndax si seen jaar-jaar bokkoon nañu ci philosophie politique boo xam ne dañoo jàppoon ni la les religions sont l'opium du peuple mooy religion dafa mel ni benn drogue rek ci peuple yi day tax peuple yi du ñu yeewu moo tax loolu du dañ ci ñoom suñu soxlee ay carte rek ñëw nag taalibe lu waaye gëmuñu ko de ñiy wax loolu ñooy ñi nga xam ne forcé nañu pose premier pierre u Ila Touba fexe ba def ko midi parce qu'il fallait ñu jël avion dem France fekkee nekk Charlie foofu mooy ñi nga xam ne saaga nañu suñu yonent xas suñu yonent wax lu ci dul noonu ba nattu am ci ba li am am yow nga taal sa avion dem ne da ngay dem wane ni yow yaay ñooña ñiy wax loolu mooy ñi nga xam ne ñooy dem toog ca bitim réew tubaab yi ne leen li nga xam ne mooy borom ñaari tur il faut ngeen daganal ko ñu ne leen déedéet parce que suñu popul pareegul da ngeen ñuy may ñu préparer leen néew ñu du am de. dañu ne notre société n'est pas encore prête loolu mooy may leen ñu ñu waajal ko kenn ci ñoom ñemewul taxaw ne lii du fi amee waaye sax dama koy criminaliser parce que du yoon ñooñee tey ñooy wër foog ni nag mën nañu nax suñuy kilifa diine kilifa diine yi leen gën a xam li xew ak wóolu kilifa diine yi da la déglu nag daan la jox cër biñ la war a jox ak waru biñ la war a jox parce que li nga doon moo tax waaye ku wax foog ni wax nga ba wër ko ba wër leen yaa ngi nax sa bopp de ndax yàlla may na leen basira may na leen xigma may na leen loo xam ne bu ñu jàkkaarloog nit toog ak moom xool ko wax ko déglu ko dinañu xam kii ndax nit la wala du nit moo tax ñun loolu yëngaluñu waaye li ma bëgg wax mooy ñun Sénégal waruñoo nangu ku ñu féewale Sénégal réew la boo xam ne dafa am nu mu bindoo mag ngi defee ko noonu nag ay gëm-gëm a ngi fi ci ay diggante ay diine waaye ay pas-pas am na ci biir diine yi waxu ngir waxu masala waxu tarixa yàgg na fi waaye teewul kenn ku ne da nga nangul sa moroom li mu nekk ak li mu gëm ñu seet nag li ñu boole te loolu ëpp téeméeri junni yoon ñu ànd ci loola looloo musa am te nag Senghor ñëw na fi nekk président di katolik musul yëngal loolu ñaar ñu tegu ci moom di ay jullit musuñoo yëngal loolu waaye fukki at ak benn yi ñu wees andi nañ fi waxu diine andi fi waxu waaso te ci Macky Sall la amee te dara nag waxul warul lu dul bëgg mooy ci nguur ci loo xam ne du yoon ma nag loolu ku xamul diine mooy foog ni mun na xoolali ci saal bi lépp a ngi fi senegal yépp mi ngi fii ci biir saal bi ci façon gis-gis bu ne loolu mooy Sénégal te dara duñu ko yàqal dafa am loo xam ne du sax jikko julit te nii lañu yàgg naxee nag julit ñi bi fi yonent bi salaam génnee la ñu ndax julit ñi ba créer fracture ñu ne ñii ñooy sunni ñii ñooy chia ñu xeexoo seen biir ñuy dox dox dox ba ci biir ñu ne biir kenn ku nekk il faut mu am ay kuréel loolu yëpp ay yoon la pour jëm ci yàlla waaye fi mu bonee mooy noon bi day jaar ci gannaaw lii nga xam ne richesse la waroon doon ci ñun richesse la doon ci ñun ndax ni mu doonee ci xeet yi noonu la doonee ci diine gi ndax yàlla bu ko sooboon ñun ñëpp dañuy bokk melo bokk gis-gis بوكو جم جم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لا لماذا؟ تعرفوا xam nga yàlla loolu yëpp bu ko defee loolu bu ko defee dafa am loo xam ne enrichissement mutuel la boo demee ci ay bindu sëñ Touba di nga gis ni lu bari dina am lu muy jëlee ci Abdul Xaadir Jeylaani ci kunti yuy ci tijaan yi ci keneen ak keneen noonu nga koy fekkee feneen ak feneen ak feneen parce que enrichissement la su ñëpp bokkoon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 moom ñoom ñëpp nangu nañu ni kii yàlla am na lum ko may ginnaaw bi mu jàngi xam-xamam ba mokkal ko moom mii di dafa jóg ngir jàppali askan wi ci lépp lu jëm ci wàllu seet wala ci wàllu ñaan ba ci wàllu xalwatu yow mi ndoxum siti sonal jàpp sa yaram di ko tàngal di la tàyyelloo ba tee laa def lu bari ci sa àdduna